face à autre chose conseil bi. waaw. doyen l'a dit ah. rétablir na. Mhm. sauver na même. Mhm. le Sénégal. c'est vraiment bien sûr. Euh, c'est à encourager. Mhm. man au lieu de féliciter c'est à encourager. c'est à parce que fii seen liggéey la ñu def seen liggéey la ñu def. déglu naa le juge Deme mu ne il avait démissionné. d'une justice qui avait démissionné mais tey il rend hommage à la justice. Mm-hmm. li taxoon mu démissionné tey il l'a retrouvé. xam nga toog moom la tey moo la wax tey. Ah donc mooy li doyen di wax nii maintenant a parce que cette élection là nga wax ko bañ ko wax ça a été saboté. Mm-hmm. tout à fait. ça a été donc manque de préparation bi muy wax c'est pas au niveau des des candidats. Mm-hmm. mais xam nga am na dysfonctionnement bu amee rek parce que à à dix heures de la campagne on était prêts. tout mais maintenant le problème qui se pose mooy gis nga élection dafa sew. Hmm. gis nga def ci am affaire yoo xam ne gis nga lay bureaux de vote ak la distribution des cartes d'électeurs foofu na foofu na élection nekkee Sénégal dañuy wax ba léegi. yow léegi yow waxu transparence ngay wax. transparence et ça la transparence c'est l'organisation gis nga le pouvoir bu koy yàq élection. Hmm. da koy yàq facilement. Hmm. tout à fait. nous nous avons géré ce pays xam nañ. c'est l'administration c'est l'administration ñoom ñu xam ne. bien sûr amatuñu patron. Bien sûr. C'est le nouveau qui viendra. Ouais. Qu'il soit des républicains. ni conseil def ba gën décision boobu. surtout l' administration tey c'est des experts. surtout l' administration territoriale. territoriale. Mmh. les préfets les sous-préfets. Mm-hmm. gën a la kenn mënu ko ci élection. xëy na rek def na loo xam de. Mm-hmm. avec l'histoire de Sonko loo xam ne vraiment du woon mm-hmm. mais li mu xam ci élection bu bu bëggee élection organiser élection dëgg dëgg dëgg. général direction des ah, élections des élections su bëggee organiser ni conseil def rek lay defaat cest di dire il nous cest à en en une journée 48 heures candé la pour remettre tout en ordre mais yàlla na am volonté boobu ak ñi koy accompagner surtout les préfets et les sous-préfets. ñooñu na des. administrateur civil. civil yi nañu mettre les bureaux de vote mettre les cartes d'électeurs vraiment on demande que la transparence que le Sénégal yëpp dellu nañu. Sénégal ñëpp ñëpp a xandoor tey ñu ngi biddanti tellement que le sénégalais le lañu bëgg génn def seen yoon mais loolu ñu tënkoon date élection suñu date bi lañu soxla jox ñu ko gis nga général Moussa bu ko neexee sax mu delloo mu delloo mu delloo militaire gendarme ah ci biir salle fa la y'aura plus rien dans ce pays dara